ñenn ñi wax ni ma dikkee mën na nek plan B bu parti démocratique sénégalais Clédor waaw li man euh, bettuma parce que comme ni nga ko waxé euh xamna ci ñu bëri ci sen biir parce que man depuis bien avant 2000 2007 la xamni euh maître Madické Niang amoon agenda daw ci législative amna lu mu ci wax euh, yenn kilifa euh, PDS mais dañ ma ci laajoon firnde parce que ñom mënu ñu won gëm loolu légui nak firnde bañ ni parce que mon euh, na groupe beaucoup bu ko pour mu nekk candidat à la place de Karim Wade waaw euh, ku nekk am na droit am ambition mais doxalin yi moom mooy moom moom la ñuy war a euh, xoolaat donc lii euh, dafa leeral rek li nga xam ni man ak ñeneen xamoon nañ ko te moom ñi mu ko séqaloon mënuñu ko mais àgg nañ ci tembe parce que ci une émission télévision bu euh, TFM newoon euh, euh président Macky Sall ci walu créé du mës a arrêté koo xam ne na ancien ministre des mines wala ancien ministre de l'énergie énergie. lu tax parce que ñoom ñoo seq euh, mbuxum yi am yépp ci walu suñu kom-kom yi. Mhm. donc ñooñu ko ci laal rek dina taxal président Macky Sall nga xamni ne na ministre des mines nekkoon na ministre de l'énergie kon motax motax moo euh, maître Madické n'est pas inquiété par rapport à justement bi justement procureur Aliou maître Madické Niang moo tax ñu jëlee ko fi mu nekkoon. ah bon parce que après Karim mom la ci naroon teg la laa junjoon ci ben émission juñju bu leer sax légui firné baa ngi parce que man dès lors de ni président Macky Sall bu ko jaralé mu dindi procureur spécial pour protéger. Mais, mais, mais Clédor, c'est grave. C'est très grave, effectivement. Non. Deuxième personne, qui nous top qui crie, me dit que Non, si tu as Taïbou Ndiaye. Non, non, ouais, Taïbou. Mais moi, non, non, politique, politique là, quoi. Ouais. ouais. ouais. C'est-à-dire, en fait, il y avait une euh, liste. Maître Modiké. Maître Modiké, bon, Samuel Sab. Relation, il m'a mm -hmm. Euh, président Macky Sall. wala bok relation yi nga xamanteni amna ko ñi ak ñi fi nekkoon euh, ministre des mines ak yeneen ak yeneen loolu mo motax il n'est pas inquiété loolu mo tax ñu jëlé fi procureur bu fi nekkon waaw bu dé loolu amna c'est grave kon réew la moo nga xamanteni euh, sen intérêt mo leen ëppal importance que njëriñu askan wépp dëgg la parce que limay wax ni leer na nañu procureur Aliou Ndao da ko dul mëna wax parce que ñom secret professionnel mo leen tënk. mais ku mel ni man comme acteur politique mën naa ko wax parce que sama analyse la te loolu mooy li dëgg parce bu ñu demee bay protéger nit ba tëbal benn procureur ça veut dire kooku am na lu ngeen seq loolu moo nekk di feeñ ni tey mhm. parce que politique dañuy infiltrante noonu la amee ñu nekk ci camp Macky Sall ñu liggéeyal lu PDS mhm. politique bu Sénégal moo mel noonu voilà léegi euh, Euh, ma ñaan da fay tax rek ñu dugg ci walu walu gaz bi euh, gis nañu ni milliards yu bari ñu ngi ñu ngi dugg ci ci Sénégal sans pour autant que sénégalais yi euh, xam ni ay ay milliards ñu ngi ciy ñu ngi ciy dugg est-ce que suñu njiit yi ñuy jité ci côté ressources yi nga xamante dafa feñ muy pétrole ak gaz ñom am nañu volonté ngir éclairer la lanterne d'une partie de la population sénégalaise. wa ñom amuñu volonté pour leeral. mais nga may ma rek parce que nit ñi dañu wara a xam ni pétrole ak gaz laata nga koy exploité dafa am lu ñuy wax amont pétrolier. Mhm. ci la retombé ci wàllu xaalis di commencé am ci la xaalis di commencé dugg du xaar ba teen yi bënn bay ball xaalis doog a ñëw bu ñu nekkee ci amont pétrolier yi ba mu am ay réserve prouvées ba ñu def ay puits d'évaluation yu prouvé seen capacité réserve xaalis dafay dafay dafay daal di commencé dugg rawatina nag ci biir 2019 bi ma leen jox exclusivité dinañu commencé exploité gazu Saint-Louis parce que tek nañu ben plateforme euh buñu tuddé FPSO euh, anglais la euh, floating production euh, storage and offloading vessel ay ay genre plateforme la ay bateau la yo xam dañuy extraire gaz bi liquéfier ko def ko ci ay méthaniers parce que méthane la xétu gaz bi gën ci monde bi mu dem mu dem Europe parce que dafa am ay enjeux yo xam euh dafa nek ci ko Sénégal té ñun xamuñu ko parce que gaz fi mu nekk nii dafa am ben enjeu géostratégique mondial parce que Russie ñoo monopoliser gaz bi en Europe Légui Cosmos euh, ferrenable BP ko gaz donc BP européen la te après 2019 kan parce que gaz normalement 2021 lañ ko encore exploité C'est une prévision prévision mhm. Mhm. mais comme que 2019 c'est l'incertitude nous ñu une solution intermédiaire pour exploiter 8000 milliards de pieds cubes yu sur une réserve de 50 000 milliards de pieds cubes donc plateforme bob ñu à 8 km des euh, côtes ci ligne frontalier bi ak euh, ak Mauritanie sorewul biir parce que le gisement bi mu ngi à 200 km mais ragal nañ ko def fofu parce que mën na am fofu ay problème motax ñu indi ko mu djégé donc lu visible lu constatable té na ci indi firnde yu gën parce que émission direct mënoo wone ay ay vidéo ay montage ak mais lool yëpp mu ngi fi. Mm. te loolu euh, kenn mënu ko weddi loolu moy plan de production Cosmos ak BP pour 2019 donc les 2019 ça veut dire que a en janvier. Rennes. 2018 2018. mais dans dans deux mois nous commençons. avant 2019 nous commençons. ok là, nous nous commençons. donc c'est sûr que ni mois de novembre nous commençons normalement en principe en principe. Moi euh, côté législatif le président Macky Sall nous gaawantu parce que nous avons un agenda mais mais euh, lii di euh, mbir mi demagul assemblée nationale pour ñu mëna xam loolu dem da nga japp ni yow. dañ koy baral. non amna lu dem assemblée nationale mooy suñu seddoo diggante ak Mauritanie 50% 50% cent cinquante mhm. ci réserve yi fa nek parce que ñetti ten la mais euh, li li président Macky Sall bëgg demagul assemblée parce que y a y a peut-être trois mois presse mauritanienne def na ben révélation comme quoi ñom jot nañu côté Mauritanie, de, BP et de Cosmos, 4 euh, milliards de dollars, 2 000 milliards CFA. Sénégal 8 milliards de dollars 4 000 milliards CFA Nous avons ko jox le gaz est un bi nga xam ne génnagul moo ni gaz bi génn retombé di mm-hmm. milliards Dakar Time, euh, Dakar Times sama frère Mamadou Publié, publier na a waxu ci kenn quel commentaire donc c'est une information. dañ dañ dañ ko naqasaale quoi. dañuy ñoom dañuy nuur dañuy dañuy bàyyi mu mais kon bi ñuy pàccoo lay gën a mais attends le problème c'est que le président Macky Sall dafa préparer benn projet de loi bu depuis 2016 décembre 2016. Mhm. dafa sas cos Petrogaz mu tëggal ko benn projet de loi boo xam ne lay génn ci pétrole bi ak gaz bi.

principe budgétaire, c'est universel. les dépenses et toutes les recettes doivent obligatoirement figurer, obligatoirement au budget. Donc, les plus doux coûts sont GAFA, nous mhm. devons bind ci budget bi buy génnaat ñu ordonné même lolo aussi buñ ñu ba dal di koy signer bu fekente ne jamono yi xaliss bobu nga wax ni duguna té mhm. Macky Sall yóbboogul projet bobu nonu ci assemblée nationale. Mhm. donc xaliss bobu mom même un tiers yoyu kon après lay don mais li wu jotta a ni moom waru ci tek loxo normalement. buñ ñu toppee logique non xaalis boobu. Mhm. duggul ci loi de finance duggul ci budget muy muy muy xaar projet de loi. du déggoon ngeen fi eurobond. 1200 milliards. bobu tam mu ngi xaar. bobu duggul duggul fenn parce que loolu moo que nit ñi di wax naan ay euh, yeneen wax 4000 milliards mais 5200 milliards. boo ci boolee eurobond yi. Mhm. waaw day day doon day total boobu. loolu projet de loi le mois de septembre le le président Macky Sall di dugal. en pleine cacophonie de parrainage nga xam nit ñi taluñu leneen ci lay projet de loi bi te loolu man ak waa Claire Vision lu ñu ñor la. Mhm. ni mu parti politique yi pour parrainage bi bañoon a nous jaral nañu lu ëpp lolu pour loi bi baña Parce parce que euh, ay milliers de milliards. mais est-ce que du du peine perdue gannaaw bi ñu ni assemblée nationale euh, ña fa nekk dañ leen jappé ay marionnettes euh, fu neex président de la république est-ce que du peine perdue. non du peine perdue parce que nit ñi dañu xamul maintenant on porte l'information parce que man communiqué na ci def conférence de presse mais amul porté nit ñi dañu xamul ni cette loi est en gestation.

waaw xam na xam nga li wax nii boo déggee nit ñi diko ko tànqamlu parce que ñu ngi koy for gauche droite dañu japp ne rek moral mayewul le président Macky Sall dal di euh, jël projet bob dal di ko yobbu ndax lu tollu ci 1 tiers ak xaalis bu toll nonu euh xamna nit ñi dal ñu ngi tok di xaar ndax amna sañ señu wala yabé yabee nañ sénégalais yab gu toll ni daal di yobbu loolu assemblée pour nako voter. wallahi wallaahi lay def té mu ngi ci santané nako bu nopi noppi nako parce que ñom

Aminata Tall ak assemblée nationale bu Moustapha Niass kon séddale bi matul ñan ñoo des jeexul. gouvernement bi dina séddale bi mu ngi commencé COS Petrogaz. COS Petrogaz HCCT dafa am quota conseil économique social environnemental ñu nga COS Petrogaz tamit assemblée nationale am nañu ay représentant COS Petrogaz kon xam nga ñun rek ñooy dese di coow mais ñoom seen biir.

pour dem vers l'information parce que pour la plupart. les nañu ministre politiciens yi ngay gis ni moo mo moo nek yo mhm. parce que ko xamni ne na ancien ministre. man mom ma war a information mais man te li lay wax ni yeb dama am ay filets ay documents. Mhm. ay ay contrats ay vidéos ay ay lepp motax man sama wax ñom duñ ko sax commenter waxuma la weddi parce que c'est rigoureusement exact donc noonu lañu ñu euh suñu suñu pétrole bi ak suñu gaz bi le tiers de nos avoirs président Macky Sall daf ko bëgg def de fonds 6 te fonds 6 c'est pas une banque fonds 6 ben fonds souverain Là, rek mais les fonds. mais kon fonds 6 ak fonds JIP. du benn du du fonds 6 euh, fonds souverain Là. ok fonds JIP c'est pour financer des des des projets. des projets fonds 6 dafa am pour leble. yéen a ngi compte compte cadre jamono yi ah. Moustapha Niass. Mhm. encore lui. Mhm. même procédé yooyu la bëgg parce que président Macky Sall bu waxee parce que maa ngi vidéo boobu ni ñoom mën nañ de leb biir palais la euh, ministre des Finances mën na ci ci ay conditions yu avantageuses ça veut dire qu'ils vont utiliser les fonds et non les réserver pour les générations futures mm -hmm. donc les loolu lu leer lu leer a mais fonds six li ci nekk fonds six du banque léegi fonds yooyu day dem à la caisse des dépôts et consignations mi nga xam ne rakkam moo fa les le tiers de nos li euh, xamul va aller à la caisse des dépôts et consignations li gars yi xamul rakkam moo fa mhm. mais magam Mhm. moo nek président conseil de surveillance bi du magam bu mbokal nday ak bay mais Babacar mbay Jamé, ko xam mhm. digënté bayu Babacar mbay Jamé ak bayu Macky Sall di nga xam ni ñom ñaar altinel ak talata ba doxul ci digënté bi. xala loolu. té président Macky Sall fu ñu nekkoon na fa kër ñom Babacar mbay Diame la nekkoon. amna lo loo xamante nitilina amul importance parce que c'est une vie privée la. Mhm. mais Babacar mbay Jamé, lutax nekkul député ñu jël le maire de. Touba Toubacouta def ko à sa place mu muñ ko c'est parce que dañ ñu ko yow ak Aliou di ngeen dem caisse de dépôt et de consignation kon bax na ñuy xam ni ña fa nekk rakam la ki magam la waaw donc c'est c'est la famille avant la patrie loolu lay lay doxal légui fonds yooyu dañ koy duggal caisse de dépôt et consignation caisse de dépôt et consignation du gérer xaalis kese moy gérer aussi suñu patrimoine foncier gis ngeen Lac Rose bi yëpp ay milliers d'hectares jox nañ ko Aliou Sall mu def fa ay projet immobilier li ñu dénk Khafor Touré mhm. projet caisse de dépôt et consignation loolu yëpp day yokk ci prérogative c'est pas fini Aliou Sall est administrateur de la banque de Dakar léegi ñun suñu xaalis ñu jox ko borom banque BDK privé BDK nga xam les anciens locaux de la les, anciens locaux de la la, la BNDES avant service de recouvrement BNDES la puis SNF moom lañ ko jox au cœur de la République kon ñoom li ñuy def

sunu njiit yi ñu euh dañu am benn affaire ci seen bop moy dribbler la population ba kérok ñuy am li ñu bëgg moy un deuxième mandat. mais loolu loolu loolu moo am ñom dañuy endormir population yi motax tax Claire Vision sant gindi askan bi mom lañ ci lañ ci toftal pour pour yee nit ñi ci problème yi yi leen intéressé ay problème économique ay problème de développement parce que yalla may na Sénégal lo xamni wax dëgg yalla buñ ko jëriñoo woon buñ ko jëriñoo woon comme Dubaï en 5 ans à court terme plan quinquennal nous développement mm. parce que Cosmos nous 16 milliards de dollars sur 30 ans pour exploiter fofu fofu 8000 km de route goudronnée 1200 écoles 30 hôpitaux alors que nous liñ ratio la parce que contrat de recherche et de partage de production c'est-à-dire li ñu ci war a am nombre de baril jour wala nombre de mètres jour la war a doon warul doon ay ay hôpital ay tale parce que euh, ñooñu pétrole du so ñoom nañu jox suñu xaalis ñu ñu xool lu ñuy def loolu la président Macky Sall signé ci document boo xam ne maa ngi ko yor moom ak premier ministre Boun Abdallah Dionne ak Cosmos non moom la signé lu visible mais li ci suuf waaw ndax bu ñu la déggee aussi li nga wax nii nekk na loo xamante ne aussi tamit lu yomb la torop ndax bu ñu toogee fii di wax sénégalais ñuy séddoo mel ni ñuy séddoo héritage wala ñuy séddoo benn affaire bu facile aussi dafay yomb kon aussi euh, xanaa nag du yomb ba nga xamante ne ndax ñoom même bu ñu amee deuxième mandat après dinañ wàcc dinañ leen mën a épingler kon bu ñu la déggee dafa mel ne Sénégal daal benn kër la boo xamante ne borom kër gi day toog def lu ko neex bu wàccee dem keneen ñëw def lu ko neex amul dara loo xamante ne protégé nañ ko fi maanaam ci wàllum yoon wala ci loi wala dara maanaam dafa yomb trop ci toog di dégg ni ngay waxee Niass Tanor Aminata Tall magam Amadou Sall maanaam loolu dafa yomb aussi ni nga ko waxee ni mhm. est-ce que réellement noonu lay demee ndax c'est trop trop facile que ñoom dañuy séddoo bu ñu paree dem tëdd nelaw ñu bàyyi leen ñu dara du leen ci fekk c'est trop facile kamem xam nga bu demeewul bu demeewul noonu mhm. suba suba ñu woo léegi dinaa la dolli Ndiaye Doss dinaa am lu ma ko jox mu leeral. askan donc ñun dara protégé wuñu suñuy suñuy suñuy ressources suñu ay bien dara protégé wu ko. dara ñoom bu ñu ko defee bu ñu demee tam dara du leen ci fekk. si si si ça a dara dina leen ci fekk parce que fi mu nekk nii. dafa am benn rapport euh, affaire Petro-Tim moo tax sax nit ñi intéressé wu ci pétrole Sénégal dafa am benn rapport bu inspection générale d'État def ci Petro-Tim bu épinglé Aly Ngouille njaay ak Macky Sall parce que dafa ni Macky Sall bu signé lii du intérêt Sénégal Sall Sall signé quand bien rapport bobu dañ ko estampillé secret légui dafa la présidence présidence def ben communiqué comme quoi rapport inspection générale de l'État dañ ko Ce képp ku ñu fekk ak rapport Bobu, dinañ ko inculper pour vol de documents estampillé secret kep ku ci exploité ay extrait dinañ ko poursuivre pour recel de documents estampillé secret motax Baba Aydara biñ invité fi Sen TV ci Ahmed Aydara euh, mënul exploiter euh, euh, document Y a un document y document non problème. rapport inspection générale d'état travaux. quel que soit par ailleurs euh, mhm. parce que suñu alal askan ah pétrole gaz warul nek secret bo dañuy menacer wax rek ñu la c'est pas normal. même <laughs> non bu je ne vous bu mu mu jox show rubrique ma may ma wax que dafa wara non parce que comme que a leer dafa dafa dafa dafa pas leen ci jukkil ay extrait yo xamni ki directeur PV d'audition mhm. ki pas directrice de l'énergie seen PV d'audition enquêteurs yi li ñen leen ak li ñen leen Mamadou Faye ci bopam dafa né ba mu nekké ba mu nekkee Petrosen nekkul euh bobu nekkul directeur Petrosen xam nga ci benn commission la nekkoon bi bi attribué marché yi ne nañu nañu nañu pétrole tim licence am jaarul yoon parce que amna na benn société bu ñu waxtaanaloon ba jubo presque muy ci oil euh ñu ñu ñu fokkati ko ci moom jox ko koo xam ne remplirul condition yi te loolu dafay gàllankoor Sénégal digganteem ak partenaires yi parce que c'est pas sérieux Mansour Faye euh, Mamadou euh, du Faye bu Petrosen moo ko ci PV d'enquête boo xam ni dinaa ko ko di ko donc loolu tam dafay baax nga di ko indi ndax dañuy leeralal li nga xamante ne moom mooy askan wi ndax euh, aussi kenn ku nekk war nga ci am taxawaay li nga ko waxee nag projet de loi boobu bu jàllee dina nekk lu doy waar te Alaaji wax na la ko léegi ndax ñoom ñoo am majorité député yu bëri président de la république la ñuy xalamal moom la ñuy tàccul moom la ñuy xoolal mhm. te bu ko fa yóbboo mën naa jàpp jàll bu dee ñoom rek donc mhm. askan wu Sénégal mhm. naka lañ war a taxawee ba projet de loi boobu du jàll Sénégal ndax aussi pour ñu taxaw il faut lépp leer sen bopp il faut ñu jot information très bien que nous Sénégal pour ñu taxaw il faut que lépp l'air sen bopp il faut que ñu information d'abord moo phase bobu c'est la première bataille à mener la à gagner la bataille d'opinion léegi li ciy tegu mooy taxaw thème mooy résistance parce que ñoom am nañu seen majorité mécanique mais souveraineté askan bi moo ko moom moo Claire Vision dugg ci one million marche nga xam ne dañuy prouver l' dañuy prôner l'action sur le terrain manam tok taxaw jamarlo ak nguur gi. mais ngeen kérok opposition bi dafa dem laaj lo xamni loi bi mo len ko may article 48 néna euh, ñi. mais mais arrêté moo leen ko téré non non waxulo marché bi ok code électoral bi euh, euh euh euh candidat élection présidentielle dafa ram accès au 6 mois avant les élections loi moko ko bind. président Macky Sall bañ ñële dem di ñaxtu lolu ñu ñu ñu ñu ñu violenté leen ci lo xamni loi la kon légui ñun ñom président Macky Sall sàmmuntewul ak yoon légui pourquoi ñun bëgg ñu teunk ñun ci yoon duñ ko def légui dañuy wacc créer rapport de force bi nga xam suñu alal dina dellu ci suñu loxo suñu liberté dinañ ko reconquérir parce que mu ngi bëgg sax restreindre ay accès réseaux sociaux yoy suñu liberté individuelle mhm. mais c'est inacceptable mais la xew Égypte mom lañ bëgg indi hein fii Sénégal la du fi la xew Égypte lañ bëgg indi fii moom moo di nii même sa WhatsApp sax boo dee da nga am benn affaire booy envoyé dañ koy contrôler sa Facebook dañ koy contrôler sa nangam ak nangam yéen yéen a ko xam ay Instagram ak yeneen noonu maanaam xeet yi nga xamante ne daal dafa xew comme man je refuse la modernité am yoo xamante ne xew ma ko mais xeetu. yow jàkkaarloo waxante joxante mais amee nga xam. waaw moo gën a day leer. waaw loolu yooyu moom moo gën a leer xam nga yooyu yëpp am na ci ay loi yoo nga xamante ni ñu ngi koy waaj ngir mën a freiner Euh, li nga xamante ni moom euh, liberté d'expression liberté de ton liberté de parole euh, ak yenn liberté yu bari yoo xamante ni dafa nekk en phase ak développement monde bi donc loolu c'est vraiment extraordinaire parce que dafay am entre deux tours le président avait dit que ni je vais gérer autrement entre deux tours le président avait dit que ni dinaa fexe ba le vécu quotidien sénégalais nekk ci vécu quotidien nga yooyu gën ayib euh, dans le dans le monde à Wakam wane woon na saako ceeb même saako ceeb ba bam wane woon sax ak na ma ko waxee ni il ignore beaucoup de choses ci développement bu bu bu Sénégal donc euh, Clédor euh, est-ce que yow jàppoon ni jot na léegi les les les politiques djok jakarlo ak régime bi fi bi fi nek waxuma jakarlo ak ay nga yo sànni xeer ak nangam ak nangam mais jakarlo ak ñom ak waxtaan bo xamanteni waxtaanu idée lay nek mhm. weccente xalat ci lu mën a askan wi ca kanam lu mën tax askan wi xam. mais loolu président Macky Sall bëgg ko président Macky Sall bi mu wootee concertation sur le pétrole fekk na projet de loi bobu ñu bind ko ba paré man vidéo yi la yor yi daté de décembre 2016 kon faire valoir lu doon wut président Macky Sall bu wootee waxtan la muy def def na ko ba paré di dérouler dara gis nga mu néna reporter na élection euh, locale yi de de de de 6 mois euh, courtoisie républicaine tax mais d'autorité il a pris un décret pour reporter de six mois. kon mai 2010 démarche solitaire la am. non mai 2020. non non non 2019. 2019, c'est de 6 mois que que c'est reporté mais. Euh, élection locale locale mais mois de novembre la en tout cas c'est reporté de 6 mois. mois de novembre la mois de novembre mois ça nous à 2020. Hein? donc c'est ça sans consulter personne donc mom du du woote waxtan c'est c'est-à-dire euh dafa am lu ma neex te bett ma muy appelou sëñ Mansour Sy Djamil Mansour sëñ Mansour Sy Djamil ñëpp xam nañ ko ci dal ak responsabilité mais tay dafa wo askanu Sénégal pour ñu guen revendiquer sen droit pour pour ñu résister dafa wo askan bi yëpp à la résistance. mais mais est-ce que est-ce que ci loolu lañuy woté à mm-hmm. Claire Vision et à 1 Million marche pour nit ñi ñëw fokkati seen ak sen yelleef ci est-ce que euh, nos chefs religieux je dis je dis pas n'importe. hein ah. ñi xamante ne dañuy yëngu ci wàllu politique ñoo xam euh, est-ce que euh, ñoom rôle bi ñu war jouer euh, ñu ngi koy ñu koy jouer carrément est-ce que ñoom jël nañu seen responsabilité par rapport ak chose politique bi nga xamante ni moom la ñu quand j'entends Serigne Moustapha Sy di que ni lac de guerre am na am lu fa am alors que Serigne Moustapha Sy Serigne la boo xamante il est influent Hein? Mhm. parce que pur moom c' sûr que ni 65000 yi ñu la ñom am nañ ko yàgg na depuis Macky ñom paré pare nañu seen non depuis Macky Sall am nañ ko donc légui euh, ñu bari japp ne sëñ Moustapha Sy bu ne won candidat la lu musul am Sénégal mën na am 5e mhm. président bo xamanteni ne diiné lay nek mhm. sëñ Moustapha Sy ñu dégg ko sëñ Modou Kara itam engagement am ngir taxaw askan wi politiciens yi bañ leen nax ku ne xam na ko ainsi de suite ainsi de suite mën nañ ci lim lu bari euh, est ce que euh, jotul nit diiné yoyu def bloc ngir jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoo di les véritables politiques. xam nga ñooñu ay citoyens lañu ci réew mi lañu bokk te ndombo tànk euh, représentativité moo koy joxe maanaam mbooloo te ñoom yàlla def leen dénk mbooloo léegi man pour pourquoi ñoom yàlla dénk leen mbooloo ba pare ñuy bàyyi ñeneen di leen nasal di leen noccil kon ñoom war nañu am euh, une implication citoyenne euh, bokk ci liy defar réew mi. bokk ci ñu yëkkati seen kàddu ci liy defar réew mi parce que am nañu mbooloo yu nekk seen gannaaw te politiciens yi ñoom dañuy wër di wuti mbooloo ñoom dañuy fortu si rek mbooloo mi ñu kon loolu mënoon nañ ko traduire en en en politique nga xam ni seen ay ndaw ñoo leen nekkal assemblée national euh, bu ñu fay voté ay loi ay góor jigéen wala loo xam ni dafa atteindre moral wala intérêt Sénégal ñoom ñu mun ci am benn taxawaay bi moo gën ñu toog fi ñuy toog taalibe yi di ñëw di leen jooytu euh, métti voilà ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm di la sant euh, di nuyu kilifa diine yooyu ndax euh, ay nit ñu baax lañ am nañte nañu ak ñoom ci wàllu diine am nañte ak ñoom itam ci ci wàllu àdduna déglu nañu seen waxtaan xam nañ ñoom ba fan la ñu mën a yóbbu réewum Sénégal Moustapha Sy man personnellement ah damay jël fii engagement ni Serigne Moustapha si na déclaré candidature man maa wax loolu te chronique bi may def mu war a jàll suba ci actunet point net wax naa ko ci waaw wax naa ko ci donc am na ci moment boo xam ne bu ñu ko tolloo kilifa diine yi nañu jël seeni responsabilité parce que ñoom ñëw dugg ci la chose politique nañu ko def jubbanti réew mi parce que politiciens yi nañu réew mi. mbaa du indi beneen polémique. dama ni la politiciens yi nañu réew mi laa <laughs> wax ba ah, daal xaw man naa indi yeneen problème. ay ca ñu lay gërëm merci beaucoup euh, waxtaan bi am na solo. xam naa beneen yoon dinañu dugg ci yeneen fan. incha allah waaw jëm ci ñàkk bi bëri na. mu nekkoon waa Claire Vision.